nekk ci suufu badar di fi jànge alxuraan di ay doomu taalibe ñoom ñu nampatal leen ci jàng alxuraan ak jàng xasida ñoom la ñuy jox ñu ubbee cérémonie bi rasulallah ak lii nga def day rëy na lool te rafet na te rafetlu nan ko ndaxit am ndaw mën a yónnee ca koo yónni mu daw boo solee saw la ngay doxi ñor na la ke boo defee lu mel nii fekk fi bokk yi fekk fi ñenn ci say doom fekk fi taalibe yi rafet na lool te rafetlu nan ko lool nuy ñaan ci yàlla ay yonent bi jëmmi Serigne Touba yàlla na nga ko yàgg a defee nii nu yàgg ko waxee nii ak ci barkeb Serigne Touba ca nga ñaanal bu baax Serigne Cheikhouna Gueye mii ak njaboot gi yëpp su ma nee njaboot gi yëpp taalibe yeeg rakk yëpp dugg nañ ci biir ak mag ñi nga ñaanal leen sa borom musal leen cim ndog ñu yegg ca yeggale yéenay mag ñu baax ña ñu yeggale ko ba mu yegg. ñu jëf seen jëf jëf ko ba mu yegg te nànd kook moom ci ñëw fii ci Badar gi bokk ak yow bis bii damaa ñëw sama kër fekk fi sama bopp ndax fii kër sëñ Tuubaa la waaye kër sëñ la ndax lu fi ne sëñ ko fi def waaye ki fi nekkoon tam joxoon na cër sëñ Abdou Lahad wutuloon ko fi barab boo xam ne bu ñëwee fi lay dal allah sëñ gi yàqu ci dara kon wane na ne am na si la bu doxoon seen diggante bu rëy rëy kon su ma fi ñëwee sama kër laa laa ñëw waaye bu ma fi ñëwee itam sama bopp sama bopp laa fekk ndax ñu dëkkee kër gi xeñtu mborum sëñ bi rek mooy leen yitteel mooy leen ñor jamono soppiwu leen dara yëngalu leen luy sëriñ bi damay wax ni ñoom daanaka mën naa wax dañoo bokk ci baqeetu salaf ndax ña jiitu te nekkoon ci lu baax ba jóge fi ñoom ci loolu rek lañ nekk moom lañuy xeñtu sama sadaaxa ak ñoom sëñ bi rek moo ko waral ci sëñ bi laa leen di woo ci sëñ bi lañ may wuyu ci sëñ bi laa leen di itam te kóllëre dañ ne ñaari koy dox su ko kenn doxee rek boo taxawee kóllëre gi day taxaw te koo xamul noo koy def nam la def moo tax ku leen bëgg a ngi nii ku leen sopp a ngi nii ku leen naw a ngi nii waaye ku leen wóolu tamit a ngi nii ndax ci dëgg ak pas yow ngeen dox ci sëñ bi tam ngeen di yëngu lay la naxaare kooku nag yàlla na ko yàlla saxal ci yéen te la maam ya yoroon ngeen di ko sàmm ba àgg seen loxo yàlla na ngeen ko joxal te dara jur gi dara bañ a manqué dafa leen saadu dari te jub gi ngeen nekk ma saxal leen ci dafa leen ngërëmal sëñ Tuubaa itam asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatu jërëjëf. ñu tàllal sëriñ bi ñaan ca ñëpp wax amin. alhamdulilahi rabbil alamin ñu bokk santaat yàlla ginnaaw bu ñu nungoo ñaan ci kilifa gu tedd gi fi jóge léegi ndax yitte moo waral mu jiitu waaye ñu ngi seedeel waa dëkk bi ak waa baas bi yépp mbégte mi Badar am ci teewaayu ëllu Mbàkke kon ñu continuer programme bi jox Serigne Chérif lii وسيدي مرامي من المولى داني بلا أحزاب بجاه السفير وعلى من المحمد ñu jox kàddu gi Serigne Khadim Gueye Badar mu dalal gan ñi di nuyu daayira yi nga xam ni ñoo ñoom ñoo séq liggéey bi ñuy daayira ahlu badar yi di ko tàmbalee ci daayira ahlu badar bu Tuuba daayira ahlu badar bu Tëngéej daayira ahlu badar bu Dakar ak daayira ahlu badar bu Badar Géey gii ñu nekk di nuyu mbooloom tund wi nga xam ni yëpp teew nañ fi njabootuk Makassar njabootu kër Maxaali njabootu kër Demba njabootu Siin Makumba ak njabootuk tund wi yëpp di nuyu monsieur le maire docteur Cheikh Gadiaga muy maire Dingiraay maa ngi koy nuyu di nuyu délégation bi mu àndal yëpp di nuyu itam ba tey Serigne Cheikhouna Gueye mi nga xam ni moo jiite bis bi moo njabootuk alxaaji Serigne Gueye gépp sëriñ mustafa ak soxna Ami ak njaboot gi yépp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaare ci bis bi di leen ci ndokkeel li ma daa wax rek ci sëriñ Cheikhouna jamono ju ma teewee rekk ci mbooloo mi dinaa koy yalwaan ñu ñaanalal ma ko suñ boroom may ko wér yàlla bu mu jàmbat dara kon maa ngi tënk kàddu yi foofu di nuyu ñëpp di sant ñëpp Serigne Cheikh Gueye mu wax ci turu famille Ngéyeen yëpp comme ni mu ko baaxoo doon defee asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tey jiital ci nuyoo bi tey sant di ñaan Serigne Mountakha Mbacké mi xalif général des Mourides yàlla yàggal ko fi lool te wér ak mbooleem ahlu Mbàkke yépp te itam di nuyu sëriñ Mor Talla suñu baay suñu waajur mi nga xam ne nii mën na mooy kilifay dëkk bi di ko nuyu te di ko ziyaar te di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi moom it lool te wér ci kanamu njaboot gi nuyu également sëriñ naa géy mi suñu rakk di xalifu alaaji sëriñ géy te di ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam yàlla bàyyi ko fi moom it lool mu gudd fan ba romb sëti maamam yi ay fan ñu ngi bég ci guddi gi kiñ ko tuddee muy sëriñ Fallou Mbacké loolu lu jarab bàyyi xel la sëriñ Fallou képp xam na ne yoonu murit moo ko éclaire yoonu murit moo ko jox doole ji mu am tey bi ko fi gannaaw bi ko waajuram yu bàyyee mu Cheikhul Khadim téye na ko organiser na ko defaraat na ko ba bi mu ko fi bàyyee loolu mooy continuité te boobu xam nañ ne lépp moom la di sant également taalibe yi fi nekk muy góor muy jigéen ndax nee naa leen Badar dëkk la boo xam yi dëkku sëñ Fallou la woon dëkku sëñ Abdou Lahad la woon dëkku sëñ Baara ndax ñoom ñëpp kenn ku ci nekk fanaan nga fii wala nga yendu fi kon nag buñ tëddee guddi gu mel nii tudd ko sëñ Fallou baax na ñu wax tuuti sëñ Fallou sëñ Fallou kenn mënu ko jeexal ndax géej la ndax sëñ Fallou nee nañ sax boo amee soxla bëgg mu faju juróom-ñaari sëñ Fallou donc boo ko waxee aajo faju kon nag ku mel noonu buñ ko tuddee guddi gii mën nañ jàpp ne képp koo xam ne ñëw nga fi. na fi faj sa aajo fas ko ci sëriñ fallu fas ko ci juróom-ñaari sëriñ fallu te xam ne incha allah rabbi barey ren di déwén sa aajo dana faju barka Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barka ba allah sëriñ gi ba sëriñ gi baral ñu ngi sant bu baax a baax sëriñ Cheikh naa xol yëpp sedd na xol yëpp sedd na nun day suñu xel dal na suñu xel dal na suñu xel dal na ndax li ñu gis moom doon na loo xam ni ah xam naa ne fukki alaaji seen ngay bàyyi de yóbbu nga ko foo xam ni kenn foogewu ko woon kenn foogewu ko woon daara jii ni mu soppi ko dëkk bii ni mu soppi ko mu jaral la bàyyi sa yitte yépp sa yitte àdduna yépp nga bàyyi ko jublu daara ji dañ daan dégg gis nañ ko ndax dara mayu ko lu dul wóolu yàlla sa sa borom képp moo la ko may wóolu yàlla sa borom képp moo la ko may ak bëgg sëriñ Tuubaa ndax sa bàyyi day mësula kenn mbon boppam bëgg sëriñ Tuubaa rek ci ñu nàmpatal ci nàmpatal ci moom la ñu joxoñu ko bëggul woon lu dul dëkkam bi xoolal woon lu dul dëkk bi ak bëgg sëriñ Tuubaa rek wóolu ko rek na ko damm rek ba lu ma lu ñu masaan def lu ma masaan def ñu di ko yéem ci bëgg sëriñ Tuubaa képp la ko ame képp ci la ko amee maam Ablaye Gueye meññeef la si maam Mayib Gueye njaboot gi nga xam ne moom la mu ñoo soxla ci moom ñoom ñoo ànd def délégation muy képp koo xam ne ki jabootam la sëtam ñëw na ci bés bi ñu ñëw indi ziyaaru njabootam yëpp tekk si loo ko sëñ naa mu jotal ñu ko njabootu maam Mayib Gueye yëpp ak njabootu Pape Ndiaye Serigne Gueye ñu ngi di dellu ziyaar ñi nga xam ne ñoo fi teew ci waa kër sëñ Fallou Mbacké leen jotali ziyaaru njaboot gi ñu àndal maa ngi waxe ci kàddu lu badar bi nga xam ne moo nekk Touba daayira ahlu badar bi nekk Touba ci seen kàddu laay waxee ñoo ma yebal te Ibrahima Thiam nekk ca bopp ba ah ak ña ca topp ñëpp ñu di ay jàmbaar yu jàmbaare yu bëgg badar yu bëgg seen seexu naa bëgg mbooleem lu lu sax ci badar ñu fonk ko lool bëgg ko lool jàpp ko lool fu ñu toog loolu la ñuy waxtaane mooy seen yitte kon man maa ngi leen di wëlbati ko santaat leen bu baax a baax a baax a baax ci yónneen boobu ñu ma yónni ñu ngi sant sëriñ bi di sant mbooleem ko fi teew nee nañ jàpp nañu lu fi waay def ci dëkk bi ñoom nga ko defal kon ñoom seen xol sedd na guy. ngan gi di ko jàpp ci benn fanu euh, koor bu neex yàlla buñ ci yegg ak jàmm ak. sëñ kon jottali bi mat na. ñu jox kàddu gi sëriñ Jaxate. ñu ngi sant yàlla bu baax. di am mbégte bu baax a baax a baax di am cawarte ci kàddu gi ñu jox di am kontante ci kàddu gi ñu jox ngir jëmi yàlla ak jëmi rasulaay jëmi cheikhul xadim di jiital ci suñu buntu cant cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na sa borom eggali yéenam ci liggéeyu cheikhul xadim di sant it ki nga xam ni mooy xalifa alaaj sëriñ Gueye Badar di sëriñ naa Gueye wax ji mën na gàtt te am njariñ ndax man sama waxu démb mooy sama waxu tey mooy sama waxu ëllëg sama wax mënu ma koo jooyale ci ku weesu sëñ Gueye sëriñ tubaa sëriñ tubaa sëñ Gueye man fa laa mën a yeew sama kàddu seexu naa jërta ñaanal wax naa ko sànq ci bëccëg kiy taxawu maam Cerno ginnaawam taxawu sëñ Mandume ginnaawam taxaw taxawu ku ko liggéeyal ginnaawam mooy taxawu alaaj sëriñ Géey ginnaawam nee naa la mag ña def góor yàlla yi def ko ci seexul xadiim moom la sa waajur wu baax we def wax naa su ma ñëwoon Badar fekk ci ay gratte-ciel du ma jaaxal ndax xolu ko ko def la xol ba fa gaa yi bàyyi xel teg sëñ bàmba la teg sëñ bàmba nee naa yoonu murit soxlawuñ ku mokkal ku mokk lañ soxla li dal sëñ bi sëñ gi li ko dal ku mu dal lii dal la waaye mu dal la nag moo yombul faaw ñu waajal la man de ba ma koy xam lam ma wax lenn rek la ma sëriñ Tuubaa boole yow naa la sóob ci géeju mahabbatu Cheikhul Khadim ca lañ dem ba yëg ni bëgg sëñ Bàmba ci lépp xewe wax naa la ko sànq dafa may leeral ci tala al badru moom sëñ Gueye keroog lay waxtaan ak man ci yorent bi maa moom képp ci néeg bi ba njaayee dem màkk ma daanu jël la mu ne Mouhamed la yàlla beral loxo nu mberalul kenn li am solo ku bëgg fees dell ak yàlla fees dell ak rasulaay salaam neel dann sëñ bamba boo ko dann rek li nga yëg murit bu ne ba ñàkk connexion na seet boppam li dal sëriñ bi nee naa bi ñuy seet Touba daa metti lool ci moom góor yàlla yii bi ñuy seet Touba leer Touba dafa lakk seen bët ñii ban jógee di ca dem leer ga daa dagg seen tànk waaye suñu waajee ko seet ba gis ko moo jëg ba ne fa moo ko jënd moom ko moo seet Touba ci anam bu metti jóg dem Touba ci anamu métti jënd Touba ci anamu métti bi muy jënd Touba ci liggéey bi boobu Cheikhul Khadim takk neerub yàlla buy dox la ba maam Cheikh Ibrahima Fall yëgee ni sëñ Touba takk yàlla la doon takk neerub malayka topp ko lépp mat na xaamal hiyaala kaafir qitaala ma al majaala bila rifaayi ak fa suróora abdal xuyoora xaada suróor kon ñoo ci des ñaanal maag doxul maag na murit weesu foofu joxel sa bopp sëñ Bamba li ñaan gi gën a fóor ci murit mooy sëñ Tuubaa maa ngi nii xol bi rek bu xol bi eggee rek lépp egg bis bi ba keroog inna yawmal fasli kaana miqaatan bis bi nii la mel ka ko samp du ne man sëñ Gueye bu mu saan tukki Amérique xam na laay xamee ni ñëw na xam na laay xamee ni ñëw na damay gént sëriñ Fàllu toog ci këram doonum sërif ci laay xamee ni sëñ Gueye ñëw na su may xëy rek gis oto bi gaare kon kooku alxuraan dañu kulli si fadlin fadluhu sëñ Fallou du jëm leer la gis nga murit da ngay am connexion boo amul connexion doo dem fu ñu fayee xaalalaahu fayee faalalaahu na leen jëf te xoli set wicc te defar jikko yi te bañ a naxante murit di wax ju bari li am solo mooy nañ leen dëggal te dëggu te tegu ci siraatal mustaqim nee naa sëriñ Gueye mosuñoo waxtaan ci ismu mu ansam mosuñoo waxtaan ci mbiru baatin ni ko sëñ waa def daal neex na bëgg naa ko lu ma dal ci moom it dama ko bëgg seere lu ma njabootam li ma ko bëgg njabootam gii leer na ma fu ma toog wax naa la ko sëñ Ousmane Ndiaye sama kër yaa ngi toog ma ne la lan lu ma la wax njabootu ala sëriñ Gueye kenn fekk leen ci lu yàlla gërëmul kon xam na li rabbi xayran mu rabbi xadarama xal bi bi lexti dee Cheikhouna maa ngi lay seereñ la sa baay ni ma demee moom tey noon laay demee moo ëllëg incha allahu taala salaamaaleykum sëriñ naa dama yónni ay kàddu ci sëriñ Moustapha Jaxate mii nee na dolli na ci xaadimul xaddim sëriñ Moustapha Jaxate xaadimul xaddim nee na buñ koy woyee ne képp koy woyee di nga fi yàgg di nga wér di nga am xaalis ak di nga am xiwal sëriñ Moustapha Jaxate xaadimul xaddim loolu day sëriñ naa mu ngi nii moo ma ko wax léegi ni ma nag ko ko ñëpp di wooyee Serigne Moustapha Jaxate xaadimul xadim kon Serigne Moustapha xaadimul xadim nee na tur woowu nee na tur woowu moo la ko siyaaree nee na ko tuddee dàkkantale ko sëriñ Moustapha Jaxate xaadimul xadim moo la ko siyaaree. Serigne Moustapha tey Badara ngi gàmmu te demaguñ ci gàmmu ci cérémonie officielle rek lañ nekk Serigne Cheikhouna wax ji wax ji yëpp mooy li Ousmane Ndiaye dund bàyyi nga lépp waaye léegi dëgmal rek a dara dëgmal yàlla suñ borom yàlla yàlla may la fan wu gudd gu ànd ak wér yàlla nga gudd fan yàlla nga sut fan sa waajur kon monsieur le ñu jox la kàddu gi. kon ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di jiital ci nuyoo bi. xalif général des Mourides Cheikh Mountakha Mbacké Bachir di ñaan yàlla guddal fanam bu baax a baax ci wéral ay cëram ba liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy defal Cheikhul Khadim mu am ci loo xamante ni lu kawe njortam la di nuyu waa kër Cheikhul Khadim gi nga xam ñi nga xamante ni ci suba ba léegi wax dëgg yàlla ñi ngi fi ñëw di leen sant bu baax di leen ñaanal ah, Euh, di nuyu sëñ Cheikhouna ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm suñu la nuyoo nag mooy jox nañ la nuyoo boobu aussi it nga joxal ñu ko euh, waa kër suñu baay alaaji sëriñ géey Badar ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm di la wax rekk ni bis bii dafa nekk bis boo xamante ni bis bu am solo la dafa nekk bis boo xamante ni bisu ñaan la loolu moom moo tax ñun ñu ñëw commune de Dingiraay man ma ànd ak sama premier adjoint au maire nekk Abdou Ndour dëkk Ceytu ànd ak deuxième adjoint bi di Pape Malick Diop dëkk Bari Jàmm ànd ak Abdoulaye Khary Ndiaye bi yore officier d'état civil ci sëñ bi nga xam ko bu baax mu dëkk Kër Ma Diop ànd ak Omar Diop. wax dëgg yàlla ñu ñëw def la nga xamante ni moom lañ daan def ndaxte ñun kat bisu badar bi xam nañ ko bu baax a baax bis bii la nga xamante ni moom la ñuy jëriñ kat ñun xam nañ ko bu baax a baax ndax yàgg nañu fee ñëw sëñ bi saa bu ñu dikkee tàllal suñuy loxo wax la suñu tawat ñaan la nga ñaanal ñu ci saa bu ñu fi jógee bu ñu dellusiwaat ak yokkute gu am solo moom lañ moom la ñu am donc wax dëgg yàlla nekk na bés boo xamante ni saa su nekk. lépp loo xamante ni def mën nañ ko pour mën a ñëw teewe ko dañuy ñëw wax dëgg yàlla def ko kon sëñ bi sant nañ la bu baax gërëm nañ la sa taxawaay ci commune de Dingiraay rafet na ndax ñun de li nga xamante ni moom lañ xam ci yow mooy liggéey ak jaamu yàlla yor suñu doom yi ak suñu jarbaat yi di def ci ñoom loo xamante ni ñun de mënuñu mënuñu mënuñu ko ci ñoom kon loolu noonu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la nga di ko def ci biir commune bi ñu war jataay yu mel nii bu amee ñu ñëw seere la loolu leneen li nga xamante ni aussi am na ca man ma mën koo seere mooy saa bu ñu fi ñëwee sëñ bi de li ñu seetlu ci moom mooy képp koo xamante ne da koy wax wàllu diine da lay déglu bu baax a baax mais leneen loo xamante ni wax nga ko ci jëmul ci wàllu diine damay mën a wax ni dégluwu la ndax moom loolu moom moo ko ñor kon sa taxawaay rafet na dañ lay sant bu baax a baax di ñaan. yàlla liggéey bi nga xamante ni moo nekk say loxo wax dëgg yàlla nga am ci loo xamante ni lu kawe sa njort la damay wax aussi ni kon ñëwaat nañ wax dëgg yàlla tàllalaat la suñu loxo wax nga ñaanal ñaanal Sénégal ndax ñun ñëpp Sénégal lañ nekk Sénégal bu amee jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm kon ci bis bi ñi ngi ñëw sëñ bi di la tàllalaat loxo di la ñaan nga ñaanal ñu ñaanal Sénégal ñaanal président de la République ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni dañoo nekk ci biir Sénégal waaye nag beral aussi ak ñaan commune de Dingiraay bi ndax wax dëgg yàlla soxla nañ ko ca taxawaay bi nga xamante ni moom nga am ci biir commune bi ñun xam nañ ko kon loolu noonu dañ la koy ñaan di la ko fet lii tàllalaat la lox rek nga ñaanal ñu ko bu baax a baax damay wax ni kàddu yi mënul gudd waaye nag mënumaa ñàkk bañ a beral nuyoo beral nuyoo ki nga xamante ni suñu baay la suñu maam la suñu sëriñ la muy maam Mor Talla ndax wax dëgg yàlla saa bu ñu ñëwee ci dëkk bi nuyu ko ziyaare ko ñu wax loo xamante ne ci aw yoon la ñu teg ñu wax li nga xamante ne aussi loo xamante ni war ñu ko def mënuñu leen lii kat war leen ko def ak lii bu paree aussi dinañu ñaanal kon moom dañ koy ñaanal bu baax a baax yàlla gën a guddal fanam bu baax a baax wéral ay cëram ndax taxawaayam ci dëkk bi ak ci commune bi ak ci réew mi xam nañ ko bu baax a baax a baax su ma waxee loolu damay nuyu di sant sëñ xaarim ndax moom it kenn ku ci nekk taxawaayam xam na ko xam nañ ni guddi ak bëccëg suba ak ngoon du sonni du tàyyi mi ngi dox ci loo xamante ni rek soxlas askan wi kon sëñ bi daal loolu moo nekkoon ci gàttal ay kàddu yoo xamante ni bëggoon nañ ko sànni di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén yu bëree bëree bëri ci lépp loo xamante ni ñaan fi suñu borom nangul ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mu ni mu ngi leen di xamal ni leen. nee na mairie bii kët nee ñu mat a ñaanal lanu ndax nee na liñ def ci gàmmu gi ren jii kët nee na ab maire mosu ko fee def nee na ci njiital Ablaye Khady Ndiaye mais nee na cere jii ñuy reere ci gàmmu gi nee na moo ko joxe moo ko soq moo ko wal kon nag Serigne naa nee na ak cant war nañu kon nee na ñaanal leen tam war nañu ci nee na sas na ko ñëpp nag nee na ñëpp na ko ñaanal eh, monsieur le maire bi nga tollee ci yëkkati kàddu la sëñ aboo ñëw moom sëriñ Sidi Mbàkke mu si Cheikh Abdou Lahad mi ngi noonu toog waaye ngeen xam ne tam soxna Ami Guèye mu alaaji sëriñ Guèye ñëw na ànd ak délégation bu am solo mi ngi noonu ci baas bi toog jitaay bi yàlla na yàgg ci barke sëriñ Touba barkeb Xaadim Rasuul barkeb sëñ Fallou mu mel ni Modou dafa am fu mu jaggu ci yéene kàddu yu ma amoon ci njabootu alaaj Serigne Gueye jigéen ñépp ci njiitu soxna Ami Gueye tey ku am ràññee am seetlu gis seen teewaay ñoom ñépp ñu ànd maase di leen ñaanal yàlla yàlla yàggal seen taxawaay kontaan ñoom bég nañ ci ñoom jër ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Euh, ñu ngi am mbégte bu baax di leen nuyu te di leen siyaara euh, ci kàddu sëriñ Xabibu moom sëriñ Moodu Seex moom sëriñ Baara Xureja euh, mu jox kàddu gi sëriñ Baara mi nga xam ne mooy léppam te ku ne xam ko ci pàkk bi mu yëg tax kàddu gi jox ñu ko ngir ñu joxal ko ay kàddoom kon day mel ne lu ñu fi wax rek ci kàddu sëriñ Baara la waaye ci ndigalul sëriñ Xabibu la sëriñ Xabibu nee na sëriñ Seexuna mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara te di leen ndokkeel ci bis bii di yëkkate kàddu yu nuyoo yu am solo yooyu ak kàddu yu cant di ko teg ci sa loxo ngir nga jotal ko boroom dëkk bi mu Serigne Mor Talla ah, waaye mu jaar ci sa mag ju baax jooju ci sa wet muy Serigne Khadim di chef de village di ko nuyu di ko siyaare bu baax a baax. Serigne Cheikhouna ak sëriñ Baara yàlla da leen a def ñuy benn ba. mel na ne lu nekk ci sëriñ naa rek loolu nekk ci sëriñ Baara ñu bokk aw doxin lool yàlla boole leen ca fañ doon sàkkoo alxuraanul karim ñu ànd ko ak ñoom waaye nag seen ànd ñoom ñu jëmbat ko suuxat ko ba mu àgg foo xam ne ku ci ñun rek yóbbaale na la ci biir ba amatuñ sago ci bis bii lépp nag sëriñ Baara moom lañ koy sant ndax yaakaar naa ñëw na fi guddi ñëw fi bëccëg ñëw fi waxtu wu ne mën naa ne mën na gëmm sax di ñëw Badar ngir. ngir fonkeel gu mu fonk sëriñ Seexuna waaye sëriñ Seexuna yow it kenn du yow ndax lu la sëriñ Baara lebal rek man nga man nga ne fay nga ko ko bewes ko ndax sëriñ Habibu mi yemale woo ko dara fi ko sëriñ Baara teg mën naan la la ko raw nga ko teg nu ko ko jàpp da nga koo def da nga koo da koo def kilifa jël lépp lu mu mën a doon looy bëgg a def lu mën a doon rek boo ci diisoo ak sëriñ Baara da nga koy waxtaan ak sëriñ Habibu mu doon ànd bu rafet bu jekk bu jaaru bu taaru ñu di ko seedeel mbooleem sa mbokk yii fi ne ak taalibe yi nga àndal ñëpp te xam ne bis bii ñu suñu ñëw fi du asaar ci ñoom luñ mën a daj ngir ñëw fi rek xeeb nañ ko te sëriñ Baara saa buy ñëw ba sañoon délégation bu mu ànd rek dana ko xeeb moo tax bi muy ñëw it mu ànd ak sëriñ Habib moomu ànd ak sëriñ Moustapha mi ci sans wet akub jigéenam soxna maam Bousso ak ñeneen ñoo xam ne amoon na yéene ñëw sëriñ Cheikhouna sëriñ Habib ci kàddu sëriñ Baara nee na mi ngi lay sant bu baax.